fan yi déggoon nañ si Cissé Lo euh, mel ne Assane Diouf ci WhatsApp bi. yow lan lan ngay jàngate loolu. maanaam xam nga ci kaawu Moustapha Cissé Lo. Mhm. Moustapha mu toog di saaga régime bi moom. wërtu doon seen problème. ndax président de la république njëkk a saaga ko. problème bi mu amoon ak Touba dem ak Kër Mbari Gambi ay saaga la woon. ñoom amuñu problème Moustapha Cissé Lo mu saaga mais nag yi mu def révélation ci biir mooy seen problème. ne dañ leen jox alal réew ñu sàcc ko billets administratifs ñu ci nekk mu tudd seen i tur. Mm-hmm. loolu mooy seen problème mais du problème mu saaga. Mm-hmm. parce que saaga na fi ku ne moom Moustapha Sy loolu saaga na moom du problème. Mm-hmm. ndax boo dee xool tey jii nguur si nekkoon Souleymane Sil Diop fam nekkoon saaga la naan kilifa yu ci bëri boo duggee ci internet gis lam lay wax. Macky Sall bi ñu toogee da ko def ministre conseil ku fal ab saaga kat ne ma am problème mu léegi ñoom problème bi ñu am mooy li révélation yi Moustapha Cissé Lo def hmm. diw ak diw dañoo sàcc alali réew mi hmm. justice administrative li ngeen ñu a def li li loolu mooy seen hmm. koo xam ne ba dara du dara ñoo bokkoon di wuti bokk di def li ñuy def bu toogee wax la muy wax na ko daal que ñu ngi dégg ay mana ñu ngi dégg ñu ne yaa dootoo dégg dossier ku bokk ci régime bi ngaa ci yéy ci yàbbi ci ci xam man Hmm. dootoo dégg ko ci yéeyaat bi muy procureur de la république ku mu a doon dootoo dégg dossier bi ñun la mi ngi en cours muy yaaxam bay plainte wala Farba Ngom dootoo dégg ku ci ñaar. waaye ñi jàppoon ndax ay saaga nag ku mel ne Assane Diouf wala. Euh, dañ leen a jaay doole réew mi moo amul yoon rek mais réew bu amul yoon ñooñu waruñu woon fanaan ci kaso bi kanam ku dem ba saaga président de la république waroo tey ne ci saaga kooku institution la article quatre-vingt ngi fi ku ko saaga dañoo war a dal ci sa